Euh, ci mbiru aji Sarr ak Ousmane Sonko nga nekk jigéen nekk politique ban taxawaay ak ban gis-gis nga am ci affaire boobu déglu nañu ko ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yàggul euh, dégg nañ déclaration bi nga xam ni itam def na ko euh, ban xalaat nga am ci loolu nga xam ni mën nañ jëm ci procès ëllëg. waaw ah, mais procès la man li ma ciy wax mooy na justice doxal li mu war a doxal. Mhm. manière très claire et très indépendante. voilà moom ci boppam dégg naa ko mu ne c'est l'occasion pour seetal dara. kële tamit euh, la voilà ki nga xam ne porte na plainte am na avocat am na justice def son travail de manière transparente ñu teg ko ci yoon loolu laa ma sadu commentaire ci procès bu nekk en cours. cest soo waxee d'une manière transparente da nga ci am doute wala lan moo tax nga wax d'une manière transparente. Ah, ci justice ah mais en tout cas dama ci insister. loolu laa ah, ci mais problème bi mooy yow boo ko waxee boo ko waxee yow loolu soo ko waxee dañ ciy taxaw parce que n'importe qui moo ko wax ancienne ministre de la justice moo ni d'une manière transparente lan nga bëgg wax ci loolu mais mu leer ci ñëpp ok c'est defe naa ne loolu la ñaari parti yëpp bëgg mooy na doon lu leer loo xam ne lii vraiment justice kay justice la tudd ki nga xam ne moom moom la ñu tuumaal <laughs> nee na c'est l'occasion pour mu setal dara c'est l'occasion ki nga xam ne jàpp na nañ ne moom dañ koo tooñ moom ut na avocat juge yi nañu déglu ah sur cette base voilà. voilà mais mais dafa am ñoo xam ni da nga leen a xam du ma wax pratiquer nga leen parce que xaw ma seen ay relation ku ci mel ni le procureur Bassirou Gueye euh, moom Ousmane Sonko daf ko tudd ci comploteurs yi ak ñeneen ñoo xam ne tudd na leen ci. ndax jàpp nga ne ñooñu war nañ mën a taxawee noonu ak ban xalaat nga am ci loolu. aw ci benn commentaire bu ma ciy def parce que bon c'est vrai que liggéey naa ak Bassirou à l'époque technique la woon mais aw ma ci commentaire parce que euh, affaire bu nekkee en justice commentaire yi nit ñi dañ cee war a maanu noonu laa ko gisee li commentaire yi ma ci war a wax mooy nañu exercer la justice de manière équitable juste et transparente voilà noonu laa ko waxee ki nga xam ne mooy moo porté plainte voilà am na avocat ñu indi les faits ki nga xam ne moo bëgg setal seetal dara moom it voilà juge bi déglu leen sur la base de li nga xam ne mooy les faits ñu jël décision loolu laa ci laa ci d' accord xam naa ci question bu mujj am na mën nañ xalaat ne sportive nga.